maanaam yéen waa gëm sa bopp li les inondations dañu war a am solution daar daar l'immigration clandestine ki est un phénomène qui date de 2005 ngeen jàpp ne également pexe daf ci war a ñëw en 100 jours est-ce que loolu également état mën na ko c'est-à-dire est-ce que nekkul ne politique bi ngeen teg ak régime bi ba lu nekk dañu war a trouver une solution en 100 jours muy inondation bi nga tudd tout à l'heure ci loo xamante ne inondation yi ça fait ça fait très longtemps mi ngi fi am avec son lot nga xam ne am na ko ay dégâts est-ce que ce régime mën na ko résoudre en cent jours. Ouais. bon Fatou quatre mois d'ailleurs parce que passé nañ cent jours yi. bon Fatou Abdou may moom ma apporter benn précision rek automatiquement. li ma bëgg a mooy. Euh, euh, gis nga tey ba ay sénégalais u fekkente ne tant soit peu cinquante pour cent cinquante pour cent cinquante quatre pour cent bu ñu la falee da nga leen war a jox cër respecte leen je n'ai rien contre lu mu expliqué sànq mais d'accord ma ci. parce que tey booy ànd ak sa leader il faut mu am loo xam ne da nga siy bàyyi xel ci lu mu waxoon ñoom ñëpp tey seen premier ministre Ousmane Sonko mi chef du gouvernement bi dina leen induire en erreur. dinañ taxaw di wax tombeek moom am na leneen lu mu waxoon avant moo ñoom ñuy wax à chaque fois mooy xool dañuy jiwaloo si ay wax tey gouverner c'est prévu c'est c'est prévoir. il faut avoir la capacité d'anticiper les choses. On n'a pas besoin de certains baromètres venant des états quelque chose comme ça. Non, non, non, là, ça nous intéresse on pas. terminer mon argument. Ah bon, vous voyez comment ce fait Maintenant, maintenant c'est quoi mm. Tey ANACIM na ne Sénégal dina am ay pluies exceptionnelles dina taw taw yoo xam ne dina bëri ndox. Mhm. Fatou Abdou ANACIM ba ko commencé wax yàgg na. avertir nañ leen ak yeneen unité yi nga xamante ne tey ay unité de de de de d' observation la ak ay unité de mesure pluviométrique toog nañ tey wax ko moom euh, euh, Ousmane Sonko ci boppam toog vous avez parlé de l'état de grâce il a dit ou il l'a dit ouvertement moi je vous ai donné des illustrations concrètes nee la le septembre toog na sénégalais yëpp tiim ko mu ne leen. xam nga man j'ai pas H24 mon mes yeux sur Ousmane Sonko mu ne leen mu ne leen su ngeen ma falee mu ne leen su ngeen ma falee on parle du chef du gouvernement. c'est lui qui c'est lui qui ah, c'est lui qui est le c'est lui qui dirige le gouvernement moom moo toog ne man tey su ngeen ma falee bu leen ma jox état de grâce. dinaa dissoudre caisse noire lan président dinaa dissoudre caisse noire. loolu laa la wax du mooy président moo tax ma ne yéen moo tax ma ne yéen da ngeen di këll këllee sénégalais yi et c'est mauvais li ngay def nii. ba li kële kële bu utiliser le mot boobu waaye ne dis pas kële kële sois plus élégant bu la kële kële quoi xam nga c'est mauvais sinon ngeen toog seen cadre yi toog ku ñu laaj ci élection nga ne ko Sonko mooy Diomaye parce qu'on a des cadres maintenant. waaw nga ne Diomaye vous avez dit qu'on n'avait pas de des cadres maintenant. waaw il faut non il faut moo kële kële. d'accord mais waaw d'accord même si même ah, pas le look j'admets que vous avez des cadres ok maintenant ce qu'il faut. retenir c'est quoi parce que vous êtes bien sapé et les cadres c'est que ñoom ñoo Diomaye mooy Sonko sénégalais yi fal leen tey gëm nañ ne tey am na ñoo xam ne bëggoon nañ Ousmane Sonko Ousmane Sonko nekkul candidat ñu votal basiru Diomaye <laughs> tey ñëw nañ à magistrature suprême ñu toog à magistrature suprême bu Sonko defee benn erreur ñu ne la Sonko ak Diomaye bokkul Sonko c'est le chef du gouvernement Diomaye c'est le président Bassirou Diomaye Faye ci boppam contredire na ko moom keroog conférence du mu def au palais

sortie yi muy def ci Ousmane Sonko ak ci gouvernement bi rawatina ko da koy def de manière très objective te man tey de gisaguma mu laal benn pàcc ci administration bi ñoo ñu bind communiquer démentir ko ne ko li nga wax lii amul bu ñu waxalee ba waxal yàlla opposition d'idée lay def deful populisme comme ñoom nañ ko doon defee mi nga xam ne dañuy dig sénégalais yi loo xam ne duñ ko def dañuy wax sénégalais yi loo xam ne duñ ko def dañoo wax ne tous les coups son permis pour accéder au pouvoir moo tax tey lii yëpp dal leen xam nga tey bu fi diggewul woon xam nga tey Fatou Abdou ki nekk di dund ci ndox mi sonn nga ne ko su toogee ki nekk ça ça c'est ki nekk ñetti mbaar nekk par exemple tey fu sori ci ndox bi nekk jidde caaray kaw nekk fi nga xam ne nekk gunaas ki nga xamante ne tey ndox mi da koy interpeller di dugg ba ci biir këram Fatou Abdou est-ce que xam nga am na ñoo xam ne buy taw du ñu nelaw ñooñu soo toogee ne man su ma toogee deux mois dama koy régler waaw xam nga loolu nga toog ñëw tey ñu laaj la ay xam nga loolu fii lañ ko fekk li ngay wax nii d'accord maintenant est-ce que en trois maanaam ci diir bi ñu fi toog ak léegi mën nañu ne inondation dootul am waaw mais moom moo ne est-ce que yéen da ngeen a gisul gul benn xamal lañ xamal est-ce que xamal lan lañ gis est-ce qu'il faut que gis nañu il tey di dem ci bërëb yi di xool di saytu xam nga ñun dem nañu jàpp leen ne am na ay xam nga chaque année ñu dem ci banlieue bi chaque dem def ay visite ci banlieue bi da ñuy gis chaque année koy def di jox moto pompe jox ay dotation de carburant lépp mais tey xam nga lan moo tax ma ne la tey lii xeeñ neexul xam nga tey Fatou du man su ma la fekkee nga nekk ci ndox mi ma ne la votel ma dans deux mois dama lay dindil ndox mi dootu fi am. ko wax dans deux mois wala dans trois mois. jarul toog état de grâce. président moo ko wax le neuf sa premier. ministre sa premier le premier ministre laa di le 9 septembre. 2020 je l'assume et je l'admets. ko lu mu lu may wax fii. dama ciy documenté wu ba mu leer dama koy xool. yow peut être suivre sa leader li ma beneen bi ci topp mooy Fatou Abdou li nga xam ne tey mun nañ ko préciser mooy ki nga ne tey dans quelques mois bu ma jox état de grâce su ma toogee. damay dindil ndox mi soo ñëwee wax ko Fatou Abdou njaay mi nekk ci ndox mi day am si yow yaakaar daf lay votel ñëw votel la tey ñëw ñu votel leen tey dañoo am si ñoom espoir parce que ñoom jàppoon dañ ne baguette magique la parce que dañ ne ko yow noo koy didee noo koy defee Abdou Tam bu dañ ne ko yow noo koy defee nooy defee nooy defee solution yi mu ne mu ne solution yi nooy defee solution yi dañ ne ko nooy defee solution yi mu ne solution yi dafa simple solution yi ni ma koy defee mooy damay tas woo conseil des collectivités territoriales seen caisse noire. mais mais loolu également. Justin Justin Justin est-ce que loolu. est-ce que loolu est-ce que waroon nañoo def retour à la case de départ. ministre ministre de l'hydraulique di dem ba Touba di wut ay motopompe di jënd essence di pompe ndox mi. nar koo def léegi su ko deful lan lan lay def lan lay proposé. tey tey on préfère. Hmm. ñu poser tey ay actes yoo xam ne allant dans le sens d'une solution. même su fekkee c'est progressivement durable. y a des techniques tey tey tey jox nañ ko jox nañ leen nguur gi jox nañ leen disposition. il faut avoir des techniciens ay gars yoo a ne tey dinañ toog. waaw il faut que déglu ma ma placer samay loolu dafa mu taxaw wax leen ko Babacar waaw ma ne danga ne il faut mu poser acte c'est bon de wax ay acte mais yan acte la ñu war a poser aujourd'hui c'est-à-dire que euh, yaa ngi ne yow jàppoo ne dafa war a dem Touba trouver ay moto motopompe yan acte la war a poser yu bokkul ak dem Touba xool le terrain joxe ay motopompe entre autres localités yu mën a dem tey prendre toutes les dispositions nécessaires parce que lépp loo gis mooy lan les dispositions voilà parce que tey lépp loo am na li nga xamante moo nekk cause bi mooy mal bi tey on les a dans de bonnes dispositions dans de bonnes conditions puisqu'en vérité ils sont les privilégiés de la République loolu yàlla moo leen ko defal. et quelles sont ces dispositions. waaw les dispositions. sax waaw léegi les dispositions Fatou c'est tey tey doone ma tey amuñ ay technicien doone ma tey amuñ ay ingénieurs doone ma tey amuñ ay plan de développement yi nga xamante a apporter ay solutions